tey nga woo àddina ñu ñëw fii ci fan cité gàddaay xaw ma cité Asegna loolu si ma dégg daal yow fi guy gi lan moo ko daan nga ko def quoi mais dafa gën a ëpp doole ren lu waral loolu. waaw damay sant yàlla julli ci sam sama ñaari waajur maa nuyu sama sëriñ si si si si as borom ndigal di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg te wër di nuyu sama xarit général maam Cheikh Mat di nuyu sama xarit Cheikh Abdou Karim Mbacke Brahma Karim wax la nuyu sama yaa war a Sarr nuyu nuy àdduna bi yëpp nuy Cheikh Abdou Diarra Diop borom xaas nuy Abdoul Mangane Dubaay suma xarit suma kilifa famille Mangane bi yëpp nuyu naa ñi nga xam ni vraiment dañuy jàppale guy gi tey édition bi tey ñu ko jiital mooy prési dere maam am Pape sama taalibe ñoom ñoo jiital euh, initiation bi mais sixième édition moo nekk nii mooy sixième bi waaw waaw. Ah. jàng nga alxuraan. Ah. waaw doomi seex nga sax ñu ngi lay ziare. weeru koor lu ci yàlla wax ab jullit ba tey mu war a taxawee taxawaay bu mu ci ko te lekk beeg yooyu waaw loolu yow Babacar li ma la wax chaque jour rek maa yow bu ñuy dàkk ñoo bokk fu ñuy dén nekk ci man ma nekk ci yow rek moo tax ñu faral même bu lu weer ko sax dañ koy def mais bii gars yi dañ ko teel ñu ne nañ ko def ci guddug maam séeréer bi waxtaan ceeg dere waxtaan ceeg prési ñoom pap booy waxtaan ci ñu jàpp ci vraiment sama boo yëpp sama rak ñoom Babacar go yëpp toog waxandoo gis ne ñoom ñëpp jàpp ci jàpp ci kii ñoom dabaax ti ko ñoom Thiès boo yëpp nekk suba ba ngoon suba dem ba tey ñu ngi ci affaire yi vraiment sonn ci man def ma ci dara wóor na def ma ci dara dara def ma ko ci kon defe naa loolu sant yàlla la nekk say rek ñu ne dañuy def nangam loolu sant yàlla moo na nañu am bañ xel bi wala dara bi mais ñoom ñoo ma ci gën a modifié. buñ la laajee lu ci dem ci xaalis ñaata la war a doon. non yàlla moo tax ñu def xam nga baaw ko réew mi dafa toll ne loolu xam nga moom yàllaa tax ñuy def loolu xam nañ ko waaye Cheikh Abdou Lahad Mbacké noon na lu baax des koy siiwal ngir ka nga xam ne daa mel ni Babacar melul ni mu war a mel jéem koo roy. waaw sëñ Abdoulaye Diop borom xaalis moo woo ñaar ñoom ñoom prési ak euh, ak ak kii prési ak dare sëñ Abdoulaye Diop borom xaalis woo leen defal leen lépp wax dëgg yàlla di ko gërëm di ko sant moom bëgguloon sax nit ñi wax ko. ñoom it def nañ mais liñ ci def yàllaa tax ñuy def ñoom tamit ñu boolee liñ am ak lii jox fa ñu def ñu def lépp parce que loolu mooy àdduna mais bëri na ñoo xam tey bu ñuy mayee bu ñuy def bu tele ñëwul duñ mayee mais si Abdoulaye moom wax dëgg yàlla dana woo may leen xaalis defal leen kon kon defe naa bu ñu toogee war nañu koo wax mais am na ñoo xam ne tey jii bu ñu mayee télé moo tax ñu mayee mais moom moom wax dëgg yàlla bokkul ci kii boobu va boobu noonu dafa def te yàlla tax mu woo leen ci suuf hmm. léegi koor gi moom ñu ngi ci presque léegi mu jeex bu soobee suñu borom yàlla nañ ko fekkee te tal ko ah lu mel ni nga di ko def di doomi di ko defati ko waa daan ko def di ko répété di moom moo ma ci gën a soñu moo président ne ma nañ koy teelal def daal yi dañ koy dañ daal guy gi Talla Ndiaye doo ci wax. Eh, daal gi dañ ciy daa daal yi. dañ koy dañ koy teel a def xam rek daal émission la ah, eh, kon yaa ngi koy dund. ah eh, naa ko. bul dund bi stress ko bu la ko dara ci àdduna. Ah. laa ilaa. jaru ko da wow di jeex feebar am problème. damay problème di ko gën a def parce que tamit loolu mooy àdduna. <laughs> àdduna boo fi nekk déglu ñi nga xam ne ñoo la bëgg ngir yàlla man suma kër ñi fi nekk ñëpp dañ maa def sëriñ ñëpp dañ maa def sëriñ. nga leen sëriñ. bu baax. lu tax sëriñ mooy lii moo bon lii moo la jëmee ci yàlla suma kër doo fi tux doo fi naan doo fi sàcc doo fi saaga doo fi tux fi naan doo fi sàcc doo te heure ngay tëdd heure ngay yeewu. kon kay mën naa leen sëriñ. <laughs> mais mën nga leen a waar ci yàlla ak yonent ba. loolu du xaaj. lu luñ ci yor sax du jeex. te loolu yan ah, loolu mën a dikkal ci benn addisu koor. non xam nga addis koor. may ñu dara ak internet yi dañu bëgg a guy gi ci côté boobu tamit parce que wàcce ne ba nga. non addis koor tey alxuraan. nit ñi dañoo bari bari bari goo xam ni ustaas yi bari bari goo xam ni. mais man yaay sama ustaas fii ma toog di wax ak. tey boo nee ralal rek yow sa diine dañ koy jël tege seen diine bopp la ñu indi. moo tax kenn ku ne la la la la intéressé wala li nga bëgg a wax wala li nga xam ne yow loolu moo la jëmal kanam wala li nga jàng moo la arrangé loolu ngay dund man noonu laay dundee. ba doo wax wax ni mënuñu see cofal dara. loolu bari na moo tax mu bëgg nga cofal ma loolu mën naa cofal lu. cofal ma ci dara guy yow itam. cofal bu may jeexal mën naa cofal lu dama ni la man fi ma waxee la philo bi ma waxee ak yow laa la wax. philo yow kañ nga jàng philo yow itam nag chaque jour nga ne ma philo. maa ngi esthétique française di jàng. fuy esthétique française Talla Ndiaye Talla waxal ak sa a tamit. ah déet man centre culturel français laa xam. non esthétique non non. institut esthétique française. institut. esthétique waaw benn la mooy. ne esthétique kat day mel <laughs> kon fi ma bëgg ko maa ngi foofu di jàng. am naa esthétique ngay jàng. waaw na ay niveau. barke ma naa niveau fi noonu nii sama niveau bu ma la ko waxoon tax da nga may weddi ne doo ma gëm. barke léegi la neex. barke Mouhamed am naa niveau de. Ah. barke yàlla mun naa la indi sama niveau léegi présenté loo ko directement am naa niveau. niveau. am na am na andi ba. maa gëm li nga wax. non non si. am na kay. dañ koo génne jox ma ko diplôme bi César maa ngi koy gërëm di ko sant César mooy tubaab bi jox. César wala César. César César waaw. César la tudd. waaw man sama laamañ moo tax. ok man laa xamoon. voilà kon xam nga ki may wax man. non maanaam turu Cécile quoi xam naa ko. non moom la moom la tudd. ak père père euh, père Samb moom mooy mooy sama mooy mooy sama kii bi professeur bi moo may jàngal ay kilifa nag laay jóg laay bokkoon ak ay kilifa laay toogandool ay te ko man du wees yan kilifa. non li Babacar li ñu wax tey jii rek mën na la dugal ay kilifa di jàng di làqatu jàng foofu. mu ñëw naan ay kilifa bu ko defee ñaan kii nagam. kon noppi lees wax. c'est que nag la problème mooy ñun li ñu nekk faa mu siiw mënuñu ko nëbb loolu mooy àdduna parce que li ñu li ñu yëngu la ñun bañ fa duggee jour bi ñu fa rek lay xam ne ñu ngi jàng. li ñuy jàng mais institut bi fu mu nekk. mi ngi nekk boori pale moo dend ak moo dend ak kii bi moo dend ak euh, hôtel bu mag la dendal foofu. Euh, xanaa du building administratif wala. xaw ma mais boo paasee boo paasee 2STV. ok waaw xam nga fi fay nekk. yaa ngi fay 1 million 800 ngay fay. avenue Abdoulaye Fadiga ca Dakar Plateau. jeex million 800 ngay. ñaay naa ko ak ambulance guy yow it. man ñi may fayal foofu noonu ay kilifa. 1 million 100 ngay fay par kilifa fay jaay. guy gi sa njàng mis doy na waar di. non loolu dañ may formé. lu beesango mais damay ñëw ci yow loo xam ne nii keroog ma fi ñëw ba dem laaju ma ko te yaakaar naa war nga ci wax ndax porteur de voix nga sénégalais dañ lay déglu ñu gis senegal temps yi affaire u rey waaw ay rey moom viol rey loolu bala nga ma laaj laa viol rey xam nga viol dañoo dañ lay tëj ak yooyu léegi viol décret bi na génn rey rey rey jàng nga alxot l'islam lu mu wax ci ku rey nit Babacar bàyyil jàng yow jàng jàng naa loolu moom da ma mën na lu dugal boolem ak sénégalais yi mais l'islam li mu wax loolu kenn l'islam dani yow Babacar rey nga. kay yàlla bu ma rey. waaw yow rey nga. yàlla man kay ginaar sax mënu ma koo rey. nañ la rey. nañu rey kat ki reyee. yow sàcc nga. <laughs> ki sàcc. si sàcc nañ dagg sa loxo. ki ñu dagg loxo. yow jam nga. yow mi jam. <laughs> nañ xool jam-jam na mu toll ñu jam. ñu jam la ko. yow ma jam waaw mais léegi ñun bàyyi nañ loolu ñun léegi. li li liñ ci fekk fekk suñu fekk nañ si. ñu nañ ko. maanaam dañoo wàcc suñu ànd kon suñu ànd ànd bu ñu fekk ànd jàmbur di topp ay tubaab ak yu kenn xamul tiye tiye la tubaab tubaab tiye tiye rey rey rey tiye tiye rey rey rey rey l'islam loolu la wax jigéen ñi nu ñu leen war a taxawoo jigéen ñi ko war a wolmal Seydina jigéen moo ko moom la ñuy mooy tey tey kuy wax moo tax ngay wax mooy xayru xalqillah kuy wax tey moo tax ngay wax tey bu leer gi nee nii moom la mais nañ ko wormaal jigéen mais def yu naaw jigéen loolu baaxul kër man dama xamul ban Sénégal lañ nekk quel pays. lu garaaw laal lay wax dëkk bi ay président nekk lu ñu bëgg def lépp dañu ko def mais bu weesee président du gar nañ. maanaam daal kon mu la déggee sécurité moo desee des moo desee. moo des. na génn nañ génn nañ génn. parce que est-ce que itam mën nañ fu Sénégalais.